Mané à partir de la semaine prochaine de cette semaine là il déposer plainte contre Manko euh, Tahaou Sénégal Nous avons porter plainte parce que usurpation de fonction la fonction bi nga le président de la république donc Macky Sall muy Sénégal fonction bobu la su fekkee ne nag dañu bëgg a mànkoo wattu seen bopp mun nañ leen ko bàyyeek mànku ak wattu bi mais wattu Sénégal ginnaaw yàlla ak yonent bi yàlla Macky Sall la dénk wattu Sénégal donc du ñu nangu ñu koy usurper

Idrissa Seck wax la gëna mëne jëf bu soobee Yalla le 31 biñu ñu le 31 juillet bu waccé ci nuage bobu boobu ci tankam ci souf dina xamné ne sénégalais yi nañ ko abadan ba ila yow mi donc lolu yaakar na ne du ci sori lén rek lay wax ki nga xamné mo nekk ci frontière bi sori wu fi muy Malik Gakou su fekkee ne des se ko tuuti courage na déposé na nekk tête de liste Géejawaay ñu woon ko lu jara jarul bu soobee yàlla.